man Abdou Mbengue ci le premier géomètre a Yoff ñu gërëm waa commune bu baax a baax ci initiative bi ñu def ba ñu choisir yoo xam ne donc la commune ci la donc loolu tamit comme ni ma wax sànq rek maire yi moom ñu ko mën a réussir comme ni ma wax la ñuy installé tey donc ça c'est provisoire une fois que donc ñoom ñu pare ba noonu donc comité bi xam ne donc ñoo war a gérer donc loolu au niveau de Yoff et puis xam naa ne Yoff avancé woon nañ ci bu baax parce que am na ñoo xam ne doon nañ liggéey ci mbir moomu te doon nañ ci liggéey ak maire yi donc ñun li ñuy def mooy gaawal mbir yi rek ba xam ne donc nañ gaaw installé comité provisoire bi def assemblée générale lu gaaw ba installé donc le comité incha allah